mbokki jullit yi bu ñu nekkoor seen xel dem ci nafila tey di ñetteelu guddi ñu fas yéene tey julli juróom benn rakka rakka bu ci nekk fatiha inna anzalnaahu ak suratul kafirona bu ci nekk ñetti yoon sëriñ bi nee na képp ku ko def dina mel ni ku gorey junni jàmma jox ndogu junni yu woor woddu junni yu rafle leel junni yu xiifa des na ko defal tuyaaba ak limub njanaaw yépp des na ko defal li ñuy defal jaamukatu yàlla yu baax yi ak ñi dee ci xare yi desu ko fitnaal ci bàmmeel te desu ko mbugal ku ci bëgg am lu la leer demal xool téere sëriñ Souhaïbou bu Mbàkke boobu di xuratul ay ni